wax day day dalay njoos waaye amul fitu jàkkaarlook yow fu mu lañ njoose boo tuddee sa borom mu daw waaye sëñ Moussa nag dafa jàngale ci Iblis nee na journaliste bi daf koo laaj ne ko ndax am nga jabar mu ne ko am naa jabar am naa ay doom ñooñu ñoo koy doxal mission nee na am na ci koo xam ne nii lenn rek la ko sant mooy njàpp njàpp bu mu baax bu njàpp baax parce que bu njàpp baaxul julli du baax walahaan lil wudu ak akbaru bu njàpp baax na nga patam patami bul yéene bu mu set bu njàpp baax mu ne keneen ki am na ku tudd xinzab fali salaati abtaru mu ne kooku lenn rek lañ ko délégué muy julli julli kuy julli mu déconcentré la kuy julli mu xalaat loola ba concentration bi nga xam ne ni moom nga war a am sa diggante digganteeg sa borom concentration bi du fa am ndax dafa xam li ci julli dafa xam li ci julli mu ne am na ci keneen koo xam ne c'est le satan économique mu dugg ci marché yi am na koo xam ne c'est le satan entremetteur moo nekk ci diggante góor ñi ak jigéen ñi noonu la ko toppe waaye lam ca teg mooy nee na caat ma caat ma moom la yebal ci nitu yàlla yi caatum iblis nee na moom la yebal ci nitu yàlla yi pour mu galgal leen moo tax gis nga Cheikh Abdul Qadir Jeylaani di jaamu yàlla di jaamu yàlla ba ci yàgg genn leer wàcc ci kanamam ne ko maay sa borom léegi lu ma la lu ma la tere woon daganal naa la ko lu ma la tegoon teggil naa la ko Cheikh Abdul Qadir Jeylaani ca matam nga la mu doon muslu ci seytaane leer ga fay jëmmu iblis taxaw ci kanamam waaye suñ maam suñ maam suñ Babacar nee na moom Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani sax nee na def nañ ko loolu mu ne waaye bu dee tarixa bi nag moom Cheikh Ahmed Tidiane nee na moo tëgg Iblis pes te xayyara Iblisul abalisi xaybatan waxaat hazahul butlaan wa huwa haaliu nee na mu sar yuux